sëñ bi ñoo ngi ziar. Ah, yaa ngi si jàmm euh, bëggoon nañ xam tur bi naka la. Ah, man Daouda Seye la Daouda Seye laa tudd. Daouda Seye waa gis nañu la nga ñëw fi di ziar ñi nga xamante ne ñoom ñooy naufragé bateau Jolaay ñu bëggoon a xam euh, ñi ko ci say fami ñan lañ fi. waaw man sama papa ma ko si naufrage bi. Mm-hmm, sa papa sa papa. waa gis nañ tamit nga ziare euh, pratiquement ñetti tombo Eh, ñu bëggoon a xam yow nan ngay identifier tomb bi parce que ñun bi ñu ñëwee gisuñu fi tour gisuñu fi dara ñu bëggoon a xam yow nan nga koy identifier ok en fait euh, bon fii amul ni identification mhm. euh, premier corps yi ñu repêché woon d'habitude dañuy dañuy indi fii ne ñu suul nañ si ay fosse commune mhm. moo tax dañ leen boole ñëpp moo tax identifié wu ñu woon corps yi ñu suul fii d'accord moo tax dañ leen boole ñëpp def ay tomb anonyme ah d'accord yéen nan ngeen yëgee naufrage bi Euh, bon jour boobu le matin soo benn tante moom woo moo woo pratiquement kër ga la woote informé sama yaay après nit si lañ ko yëgee noonu. léegi yéen ça fait vingt ans depuis boobu léegi ba mu amee ba léegi léegi yan jéego la fi état la ci état bi def. Euh, bon côté jéego mën nañu départ bi euh, ñi xam ne ay orphelins mineurs lañu woon ñoom lañ jëloon ñoo amoon moins de dix huit ans mhm. au départ ñoom lañ jëloon. ñoom la ñu accompagner seen jàng seen scolarité eh, ba ba mazur majeur bu xasee ba majeur après ñu arrêté la mhm. mais ñi nga xam pare mhm. Yang berarti makin jëlu on asar en asar. jëlu leen en charge yow da ngaa bokkoon ci pipi yi ya, wala bon ma fekkoon justement bu bo kon na bo ko mon tamit loolu c'est-à-dire puisque ñi xam dañ leen jël comme pipi à partir de 2012 je pense 2012 2011 dañ leen soog a considérer comme ay pipi mhm. donc ñooñu lay soog a ko ñooñu jël en charge. man ba may bañ koy bañ koy décréter bu ko fekk euh, majeur naa. yow majeur majeur naa ngeen ci association yi nga xamante ne ñoom ñooy euh, constitué euh, victime yi voilà. waaw pratiquement benn association moo fi nekk ah. ban avancement moo ci am. bon presque chaque année même revendication yi la ah muy élaboration kii bi mémorial bi mooy musée bi. Mhm. ak NFK. bi sax ñu jël en charge ba ñi nga xam ne dañoo majeuroon au moment bi ñu décrété kii bi euh, mais benn benn résultat amagul ci au niveau de l' état. ba tey pratiquement amagul. sëñ bi ñun gis nañ fi tey mooy vingtième anniversaire euh, des victimes du naufrage de Joola euh, tey ñëw nañu fi gisuñu fi tableau gisuñu fi dara yéen nu ngeen def xamé sen sen sa parent hmm. bon en fait fi ay tombe anonyme la won ay tombe anonyme premier corps ñu reféché yi depuis dañ lay indi fi euh bon puisque mënu ñoo identifier corps parce que yene yi commencé won na yakk ak yoy donc ñu bolen def len ay fausse commune dal len d'accord parce que indé corps yi est-ce que est-ce que yow sa tante mo la informer nga ñew euh bi ñu ñëwé won ñu len corps yi non en fait xalé la won bon ñun ñëwuñu woon dañoo informé woon juste naufrage bi li si de say sama quelques oncle ñoom ñoo géré woon kii géré woon le reste. Hmm. tey tey ban yëg-yëg nga am. bon euh, comme euh, bépp bépp dëj rek bu amee kenn si wàññeeku si yow day xaw a métti tuut xaw a diis wala rek yàlla la. Sama sih na nga def may fi tur biasa nanti. sant bi leen leen di laa tudd leen leen di tey ñëw nañu fi fekk eh, la fi ci victime di jo de joola léegi dañoo bëggoon xam kan moo la fi nekkal man sama borom kër fides. sa borom kër moo fi des noo noo yëgee mbir yi bi affaire bi amee noo waaw man de jour boobu damaa xëy toog sama kër parce que comme moom dafa am habitude moom buy ñëw chaque jour daf ñuy woo ñu xam ne mu ngi ci yoon bi ñu xëy la matin te bu daa xam nga bato te bu daan ñëw fajar lay ñëw ma xëy ma ne xale yi ah nañ toog comme cours de vacances bi nii am ku ndaw ki di dem cours de vacances ma ne ko dema ma des ak ku mag ki ñu toog fa ba si yàgg ma daal di kay toog ba ay dix heures taaluma rajo ma tel mu melni dal dara la mm-hmm. si ak ma ah 10 heures jot na comme sa papa ñewul ba legi xamna bato bi da amati problème comme temps yi ma ngi deg ñu dafa am problème xara ma daw marché ma ñew man dem na ba marché di ndug sax tassé ak sëram mu may laaj nak nga deg sa jëkkër ma ne ko ah militaire la won mu ne manako parce que fu mu newoon mission amul won réseau mënuñu ko won jot chaque fois manako ah jot ko mais mu ci yoon bi sax si bato bi si la benn di gëstu xol mu ne bato bi xanaa yëgoo leen li xew ci bato bi ma ne ko lu xew mu ne ma bato dafa diig ma ne ko luy diig mu ne ma dafa suru ma ne ko ah, ah soxna si li nga wax rëy na de la joolaa laa la wax de mu ne ma moom laa la wax soxna si mu ne ma si suuf ba léegi rajo yi moom la ñuy safe man daal fa a xam si lu ma nekk ba ma yeewoo sama kër comme ça noonu daal laa ko xamee mu ñëwee sama kër après si la ñu dem port mu doon lu metti nag vraiment metti trop. Mhm. est-ce que depuis bi def jéem na ci def ay jéego. Ah. waaw am na luñ ci def parce que euh, indemnisation bi ñëpp xam nañ ko waaw xale yi aussi am na instant yi ñu leen doon jàppale mais dañoo yéex a jóg daal waaw dañoo yéex a jóg parce que dañuy jàppale xale yi fekk am na ñoo xam ne majeuroon nañu te xale yi. ñi majeur yi ñu ne kenn du leen kii mais ñun ñi des ak ñoom ñoo def ki yoon parce que xale tamit doo ko bàyyi noonu sa doom il faut nga ko mu il faut nga def ko mu jàng mu nekk daal affaire bu metti daal waaw daal loolu lañ ci am. Euh, léegi moom ñoom euh, corps militaire ñoom ban taxawaay la ñu am ci sa sa famille yow. waaw militaire yi moom wax dëgg yàlla ñëpp xam nañ ne fii kii. Eh, dinañu ki mom li ñoom mom liñ nara taxaw mom wax deug yalla taxaw nañ ko waaw liñ nara liñ sék ak man dal def nañ ko waaw seen waref dal def nañ ko. gis nañ nga ñew eh, taxaw ñaan dañ doon laaj ndax yow xam nga fu ñu denc sa borom kër wala yeen nan ngeen def ak identification yi comme amul benn tableau gis ñu fi benn tableau buy wane ne ñaata nit ñoo fi nekk wala ñaata eh, kan ak kan moo fi nekk. ñun loolu mooy suñu problème. Mm. loolu la ñuy jooy ba tey parce que xam nga ne sa nit dem gisuloo ko suululoo ko xam nga ne loolu du musa dañ sa bopp waaw ñun loolu mooy suñu problème man sama borom kër feeñu lool gisuñu ko woon kon dañuy ñëw boole ñëpp rek daal di ñaan waaw parce que gisuloo sa néew xamoo fiñ ko suul. xamuñu fan Amanya kok. den den waaw nah, ah man de gisuma ko dëgg yàlla waaw te loolu moo sonal ah, léegi yéen lan xaar ci état bi fi toll nii comme ñu ngi ci vingtième année bi lan xaar ci état bi ñun de wax dëgg li ñu bëgg ñu dal sama xel buñ ko mënoon génn fi net. Pas parce que ñun xamuñu dara si bato bi dara lañ ci xamul waaw mu ñu sañoon daal mu génn parce que day des sa bopp da sonal man am naa doom joo xam ne ba léegi des fois day toog mu ne ma maa ba mu mu ne ma day mel ni sama papa dafa voyage ba léegi mu ngi ci voyage bi xam nga loolu mun du du mu sa des sa bopp kenn bañul dee fii lañ ko fekk ñun ñëppay dem mais ak ak ak façon bi daal. lo rek mo ci metti xam nga ne tay nga tim sa nit ba nga suul ko mu wóor na ne fi la ko sul mu ñaan jotté nga ñëw sukk ñaanal ko mu wóor na sama nit mo tudd fi xam nga lolu di nga xam ne ka dem na jenn na mais nga xey rek nit ki dem na ci gisuloo ko xam mu fiñ ko sul ñun dal lolu moy suñu problème lolu rek moy suñu problème waaw. ñu lay jaale tamit na ko yàlla yërëm xaaral ko ak dënnu mën na la yàlla naa def soxna si. may noo tudd. Khady Mbengue. Khady Mbengue. Khady Mbengue. Mm-hmm. waaw Khady ñëw nañ fi tey fekk la fi tey mooy vingtième anniversaire victime Joola tey lan moo waral sa teewaay. Euh, tey boo gisee ma ñëw fii sama papa laa ñàkk si bateau bi te je suis née quatre mois après le naufrage bi muy am fekk bu ma judd boobu sama yaay mi ma ëmb

xam nga Sénégal nit day ñëw naan la kii mooy doomu diw diw la fi diw bàyyi ak noonu mën naa ne nekkul luñ ma nëbb la nekkul luñ ma nëbb information boo xam ne dama ko màggaale mm-hmm. te bi ma nekkee xale dama ko doon wax di ko fowee nii ci mbedd mi ça ne me pas parce que koo xamul affaire du la déranger et tout mais bi ma xamee bi ma gënee jëm mag la ma affaire bi commencé di marqué vraiment.

jusqu'à présent ñu continuer di wax rek ñu ko né di wax li ngone doon laaj démb ak bëkk dem ba légui mom la ñuy laaj surtout li ci ëpp importance muy le renflouement du bateau soxla nañ ko toog moom est-ce que ñi ñuy fi euh identifier nañ sa corps pas. non non on l'a pas trouvé xamuñu budé ci la bok wala bok ci jusqu'à présent lepp lu ñu xam dal moy ka gañu na ci voilà. En ce moment-là, j'ai 19 ans, parce que je suis née 4 mois après. Affaire de mettre na top, vu que je ma gënee nekk ça ne me dérangeait pas mais bi ma gënee jëm mag nag la affaire bi commencé di me marquer réellement. ah man ak sama yaay ak sama famille franchement yàlla dogal na mu may ñu yaay ju baax bu ñu toppatoo amuñu franchement ben problème je suis dans une bonne famille dans une bonne condition maa condition yu baax mangi jang mangi def sama études sama mak aussi pareil xanaa kay ñeneen ñi nga xamante ils n'ont pas les moyens pour ñooñu ñoo tax ñuy wax. jang bi kan mo la koy faire jang bi sama yaay. kon li nga doon wax sank ci affaire fourniture état fourniture rek la ay fourniture ba paré bu ñu ay examen dinañu jox comme genre.